من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما استفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi ñuy déglu te di seetaan bu ngeen gisee jataay bu barkeel bi xam ne ndigal bàyyi ko na ci xalif général de kullu murit sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbakke ñëw ki sëriñ Ahmadul Maxtaar may Cheikh Moustapha waaye ñëw nag ci sëriñ Moustapha Mbakke Mohamed may xalifa sëriñ Mbakke Soxna Lo waaye nag ñëw ci alxaaji Baye sëriñ Mbakke Guèye may xalifa sëriñ Mabé Guèye ak mboolem njabootu sëriñ Mabé Guèye gépp waaye ci ndigal ak ci kilifteefu sëriñ Mabé Guèye mi nga xam ne tey. moo toogee jataay jataayub alxaaji sëriñ Amsatu Gueye Ngathie bis boobee nga xam ne doomam ju baax ja sëriñ Moustapha Gueye ca Touba saam goog suñu Abdou Latif bis ba mu daan woote fukki fan ci weeru baraxlu bisub ñaan bisub sant bisub delluwaat njukkal sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba waaye nag di ci fàttaliku ay maamam di ci fàttaliku waay juróom bu baax wi nga xam ne bis bi ci ndigalam ak ci kilifteefam lañ ko daan woote muy alaaji am Amsatu Gueye moo ko ci fàttaliku waale bis boobee nag moo waral jataay bii bis boobu nag Serigne Moustapha Guèye di ko woote di ko yëgal mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko yëgal mbooleem seex yi yëpp bàyyiwul kenn di ko yëgal taalibe yi ak dayri yi ak association yi ak mboolem foo xam ne xarita nga fa wala wëlëre Serigne Moustapha Guèye mi ngi li ko yëgal bis bi nag Serigne Moustapha Guèye da ko tuddee Serigne Makhtar Omar Sylla waaye nag dara jaale ko Serigne Mara Guèye moom Baye Alaaji Serigne Mbacke Guèye dara jaale ko it Serigne Ibrahima Thioub jànkatu xasaayit moo tax Serigne baa ngi yëgal ñëpp daanu yëkkati kaddu gi jox ko Serigne Ibrahima Gueye moom Serigne Amsatou Gueye mu wax ci turu Serigne Moustapha Gueye bu noppee daanu yëkkati kaddu gi jox ko Serigne Pape Faye mu wax ci turu taalibe yi bu noppee daanu yëkkati kaddu gi jox ko Serigne Bàcci Aan mu wax ci turu Serigne Makhtar Omar Sylla bu noppee danañ jox kaddu gi Serigne Mbaye Gueye mu wax ci kaddu njabootu Serigne Mabeye Gueye gépp kon daal ñu déglu kaddu yi. aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi taslima bokki jullit yi ñooy teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi nuyu mboolem bokki jullit yi di siyaare di leen balwaq di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila cheikh mahamadinil muntaxa di ñaan yàlla suñ borom mu yàggal ko te ko noo ngi yëkkati kàddu ci kilifteef ak ndigalul alxaaji sëriñ Mbàkke Géey mi nga xam ne moo toog toogaay sëriñ Maabey te nekk ci bopp mbooleem seex yaaju si kër seex Mouhamadul Moustapha waaye ci kilifteefu sëriñ Mabeye géey mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Hamsatu di borom kër gi. nu yëkkati kàddu gu ko ci seex Mouhamadul Moustapha Guèye ibnu sëriñ Hamsatu moom sëriñ Mabeye Guèye muy fàttali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ni ko seex Mouhamadul Maxtaar waxee. bisu lislaam boobu nga xam ne baaxoo na koo taxawal ci ndigalul kilifa yi muy bisu sant yàlla ak ñaanal way jàmbaari lislaam ji sëriñ Mabey Guèye ak sëriñ Mor Xasso muy bis boo xamante ne bii dongo yi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji di jàng alxuraan ñi nga xam ne ci la ñuy wattu ak ñi bind kaamil at mu nekk ci la ñuy daje ak seeni wayjur ñu jébbule kaamil yooyu nga xam ne moom la ñuy bind ñi nga xam ne ci la ñu wattoo ñu tari ñu delloo ñi nga xamante bi ñoo war a dellu seeni wayjur yëpp bis bi it sëriñ Moustapha mi ngi ciy woo mbooleem jullit yi di ci woo mbooleem taalibe yi umma islamique bépp bàyyiwut kenn fu waay man nekk di jiital ci woote bi mbooleem seex yi aju kër seex Mouhamadul Moustapha tam bokk ak ñoom Daaru Xuddoos di ci jiital mbooleem njabootu sëriñ Mabé yëpp bàyyiwunu kenn di ci woo mbooleem jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi di ci woo mbooleem jàngkati xasida yi di ci woo mbooleem ñuy waxtaane mbaaxu sëriñ Touba gi sëriñ Gana Messere Maxtaar Ahmadou Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Sohaybu di ci woo Serigne Mamoun Mbacke ibnu Serigne Abdoul Ahad Serigne Khadim Basir Mbacke ibnu Serigne Abdoul Ahad Serigne Cheikh Abdou Mbacke ibnu Serigne Sohaybu Koso sëriñ Saalihu Mbàkke ibnu sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Seex Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Latif sëriñ Fàddilu Mbàkke ibnu sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Seexuna Mbàkke ibnu sëriñ Seex Jay Abdul Ahad sëriñ Moodu Mbàkke Farmata Saam sëriñ Seexul Xadim ibnu sëriñ Siidi Mbàkke sëriñ Maamun Buso Imaam sëriñ Moodu Maamun Jaxate sëriñ Maamun Jaxate Baye Serigne Diop mi nga xam ne moo jiite mboolem section yi nga xam ne ñoo aju ci ay Baayul Xadim te nekk fii ci Touba Serigne Maam Serigne Maam Balla Mbacke mi nga xam ne moo nekk fii ci Saam di jàngalekatu Alxuraan di Serigne bu mag. sëriñ baara moom sëriñ seex baara moom sëriñ baara xuraji sëriñ ahmadou mbàkke saam moom sëriñ fàddilu soxaybu ak ndam mbàkke ibnu sëriñ abdul hakaram ibnu sëriñ afiya moom it kër gi kërama seriñ moustapha mu wax ne mi ngi ko koy fàttali ak mbooleem njaboot gi yëpp bàyyiwunu kay bu ak mbooleem jàngalekati alxuraan yi ak mbooleem jàngkati xasida yi ak jullit yëpp sëriñ moustapha mi ngi leen ci woo di leen xamal ne bis ba bisul islaam la bisu jàng alxuraan a xasida la bisu istixfaar la bisu salaatu ala nabi la bisu fàttaliku sunu borom la bisu delluwaat ci alxuraan ak delloo njukkal ndaw yi nga xam ne ñu ngi wattoo ci daara ji jàng fi alxuraan ba mokkale fi di yëkkati kàddu wooteem googu nag di ko woote ci ndigalul kilifaam sëriñ Mabey Guèye moom sëriñ Amsatu ak mbooleem ñi mu ko bokkal ñëpp di ci woo mbooleem waa presse bi bàyyiwunu kenn di ci woo mbooleem communicateur traditionnel ak mbooleem ñi mu bokkal l'islam ak ñi mu bokkal Serigne Touba di ci woo mbooleem mbokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi fii ñu toog nag ñu ngi toog si ndigalul Serigne Moustapha Guèye maanaam bis bi nga xam si moom leen di waajal muy tombeek fukki fan baraxlu wi moom la ñuy waajal di ko soññi mbokki taalibe yëpp moo xam ñi nga xam dañoo nekk bitim réew ak ñi nga xam ne dañoo nekk si biir réew mi ñu leen di koy soññ bu baax a baax ñoo xam ne bis boobu nag sunu bis la moom lan am képp koo xam ne yàlla def nga ñëw fi ñu ngi fi ñëwal ku ñëw fii lañu ñu war a fekk ku demit fii la ñu war a bàyyi loolu mooy li nga xam si mooy ndigal li jóge Cheikh Moustapha di ko soññi mbooleem daayira yëpp mboolem daayira soppi Seydina Ahmed yëpp ñu ngi leen di soññi di ko soññi daayira yi xam si ñoo nekk si biir dëkk bi di ko soññi maire mbootaay ñoom ñëpp ñu ngi leen koy soññi bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di sox suñuy kàddu si kàddu yi jëwri di fi jaar rek muy bis bi nga xamante ni moo lay waajal muy bis bi euh, ñu ko tuddee ñu dem fa mu jox ñu digal di soññi mboolem taalib yi nga xam ne ñoo si kër gi di soññi mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëñ Makhtar Marama Sylla góor jigéen baa nga da bàyyiwul kenn di wax ne bis bi daal fonk na ko fonk koo xamante bi mi si woo mboolem taalib yi ñu wax ñu waaj ko ndax jàpp jàpp na ko te fonk na ko ndax suñu musuwaay gi cofeelam si moom tuddee ko euh, cofeel googee nag daa bëgg mboolem koo xam ne soppeem nga wala taalibi nga rawet nañu bokk si kër gi mi ngi leen di soññi euh, jëwriñ ji nag moo na fi yabal gi daal nga xam ne kàddu soññee la ak kàddu bis boobu noonu nga xam ne suñu musuwaay mu dudul moom ba pare yëkkati ko tuddaat ko sëriñ bi sëñ bi ne mi ngi si woo ñëpp ñu waaj ko nanuy waajee bis nga xam ne mooy wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam ginnaaw buñ santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi di ñaan cheikh mamadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak weer di ñaanal sëriñ mbàkke ge xilifaab sëriñ Mabéye sunu borom yàggal ko fi lool ak sëriñ Mabéye moom sëriñ Amsatu ak mboolem njaboot gi bu ngeen gisee jataay bu tedd bii nag ak njaboot gi nga xamante ni danoo toog nii feggoo ak ñun ngeen xam ne ndigal daf noo jot ndigal loolu nag bàyyi ci sëriñ Mabey Guèye mi nga xamante ne nii moo fi toog jataayub sëriñ am satu Guèye te mate ko sëkk ginnaaw bi fi woy juróom yi bàyyi ko lépp li nga xamante ne nii woy juróom yi batale woon na ko ko lépp mu taxaw ci taxawaay boo xamante ne nii mat na sëkk ñu jote ndigal ci moom nag ndigal loolu nag bàyyi ko ci alaaji sëriñ Mbacke Guèye mi nga xamante ne nii moo di xalifaab sëriñ Mabey jaar ci sëriñ Cheikh mbakki Guèye mi nga xamante ni daf di rakkam jaar ci Serigne Mara Guèye mi nga xamante ne nii mooy mboolem kilifa njaboot gi yëpp ak Serigne Ndiaye Guèye mi nga xam ne mooy jëruñu liggéey yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci kër gi yëpp ndigal loolu nag bu ngeen gisee jataay bi mooy bis bi nga xamante ne nii moom la Serigne Moustapha Guèye mi nga xamante ne nii doom la ci kër gi jëwriñ la ci kër gi lépp ci kër gi woote bis bii nga xamante ne nii yàgg na di ko woote ku miin jataayi kër gi miin nga ko muy bis boo xamante ne nii bisab lislaam la bis la boo xamante ni da ciy fàttaliku ñaari way juróom muy Serigne Mabé Guèye ak Serigne Mor Assou Badiane tey jii nag sunu way waajur yi nga xamante ne nii daf daan ànd ak ñun liggéey bi di sëriñ am Gueye tey jii ñu dugal ko ci lim boobu ya nga xamante ne nii moom lañ doon fàttaliku waajur yooyu jiitu woon di maam ya Serigne Amsatou Gueye moomu dem dabi leen ñu di ko boole ci liggéey boobu nga xam ne moom lañ daal liggéey ak di ko ñaanal jur ya ñu di ci ñaanal Serigne am Gueye ak mbooleem njaboot gi nga xamante ne nii ñoo di way dawle yëpp bàyyiwunu kenn Serigne xalifaab sëriñ Amsatou géey nag bàyyi ko ci sëriñ Bakki Gueye mi nga xam ne mooy xalifaab sëriñ Mabey nee na ñu ngi woo njaboot gi yëpp bàyyiwunu kenn njaboot gi ci biir réew mi njaboot gi ci bitim réew Bawal Kajoor Saalum bàyyiwunu kenn ñu ngi woo ñëpp sëriñ Bakki Gueye mi nga xam ne mooy sëriñ xalifaab sëriñ Mabey nag nee na mu ngi woo képp koo xamante ne nii bokk na ak yow ëtt bi nga xamante ne nii mooy Daaru Xuddoos di ahi bàyyil xaddiim ab naaw suyoox sëriñ Bakki Gueye nee na bàyyiwut kenn mu ngi woo ñëpp ci bis bii nga xamante ne nii bis la boo xam ne bis yëpp ñor na ko waaye bis bii ñor na ko kon nee na mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn fu fi waay nekk ak fu fi waay toll ku dégg woote bii na nga xamante ni nii mooy woote bi alaaji Serigne Mbacke Gueye bi nga xamante ni nii doomam ji di Serigne Moustapha Gueye feggoo ak magam ji di Serigne Mabi Gueye di xalifaab Serigne Amsatou Gueye Serigne Mbacke Gueye nee na mu ngi woo ñëpp ci turu Serigne Mara mi nga xamante ne nii nag moom la ñu dara jaale bis bi ba noppi muy kilifa ak njaboot gi yëpp kon Serigne Mabi nee na bàyyiwut kenn mu ngi woo ñëpp fu fi waay nekk waay toll ñu ngi lay woo di sàkku képp ku fa teew li nga xamante ne nii moo di sa yitte moo di sa bëgg ci saayir ak baatin yana la sun borom saafara loole barkeb yonent bi barkeb Seex Axmadul Xaadim Xaadim Rasul barkeb Sëriñ Maa bi sunu way juróo Sëriñ Maa bi it wax na ne mbooleem daayira Silatu Rahim bi ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir réew mi ak ñoo nekk ci bitim réew ci kilifteefu Sëriñ Maara Géy mi nga xamante ne nii mooy kilifa ak njaboot gi yëpp nee na mu ngi woo ñëpp fi fi waay nekk daara yi ne ci biir dëkk bi ak daayira yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir dëkk bi te di daayira yoo xamante ne nii ci sillatu rahim la ñu bootu ak daayira yi nga xamante ne nii mooy soppee Seydina Mohamed yi Serigne Mabey nee na ci ndigalal ci Serigne Moussa Gueye mii nga xamante ne nii mooy woote bis bi nee na mu ngi woo ñëpp bis boobu nag mu ngi tomboog fukki fan ci weeru baraxlu wi kon képp koo xamante ne nii dégg nga woote bii te bokk ci kër gi wala ngay njabootu kër gi ak foo ci bokki ak noo ci bokki nee na ñu ngi la woo di ñaan suñu borom tabaraka wa taala ku fa teew suñu borom faj say aajo batin asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu di tombeek fukki fan ci weeru baraxlu du tombeek weeru mars le 13 wala le 14 te Touba Sam goog sëriñ Abdou Latif sëriñ Moustapha Guèye moom alxaaji sëriñ am Guèye nee na mbooleem sëriñ daara yi mi ngi leen di woo mbooleem jàngkatu xasaayid yi ak duruskatu xasaayid yi ñu ngi leen di woo rawatina nag bis ba dañ cee jagleel daara ji jataay bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne dañoo mokkale ci daara ji danañ feeñal seen yéene ci cérémonie officielle bi cérémonie boobee nag ginaaw bu nu jullee takkusaan lañ koy tàmbali kon sëriñ baa ngi yëgal ñëpp di fàttali mbokk yi bis ñi ngi ko tuddee sëriñ Maxtaar Silla moom sëriñ Omar Silla waaye ñi ngi ko dara jaale sëriñ Mara Guèye moom bay sëñ Bakk Guèye mi xalifa sëriñ maa bay Guèye da jëwri ni seex yi Daaru Xudus yëpp waaye dara jaale ko it sëriñ Ibrahima Thioub jànkatu xasaayit ñëpp xam diggam ak sëriñ Moustapha Guèye kon sëriñ bi nee na bàyyiwul dëkkandoo yi xarit yi wëllëre yi am di jàmm yi képp koo xam ne mas ngaa am lante ak Serigne Moustapha Guèye mi ngi lay yëgal bis bii nga xam ne moom lay amal fukki fan ci weeru baraxlu du tombeeg le 13 wala le 14 ci weeru mars fii ci Touba Sam gox suñu abdatif bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn Serigne baa ngi séentu ñëpp. aqdimu ila duxulil janna دار الخيرار والمنى والمنى من زنان ويكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا